saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Thierno Gueye préparateur mystique u Balla Gaye moom Gueye njooro ci sunu lamb la xëy wax ci mbërëm wax ci champion wax ci la li yore géejawaay mbër yi taxaw temm ngir bërëg Balla Gaye 2 déglu leen maam Thierno mu ngay wax ak yéen man maam Thierno Birahim li ma yàkkamti mooy gis Balla Gaye mu jàpp yenn ci mbër yi tëj ci leen ba ñu nooy nepp dama ne képp ku yaakaar ne Balla Gaye jeexal wala mënatul la mënoon yaa ngi trompé wu képp ku yaakaar ne Balla ba dugg ci cercle Balla Gaye 2 da nga wéet jooy mbër yi fi nekk di cëppi cëppi ko Balla Gaye 2 laa soxla yàkkamti naa saison bi ubbi waat ba ne mu génnam bu mujj bii mu génn tax na ñépp xam ne digganteem rëg-rëg dootul nekk moom Bombardier ba mu génnee ci sunu làmb la mu xamle mooy sama génération laa bëgg a bëreel samay combat mujj muy Eumeu Sène Gris Bordeaux Balla Gaye 2 Tapha Tine ba ci Modou ku ci ñëw ñu bare digganteem

a neex mooy la jamaykee nar a defati ca Gàmbi moom jamaykee njiital jam production mbooleem amateur bu nekk ca Gàmbi yaa ngi koy ñaanal ngir suqali ga muy suqali làmbu Gàmbi gannaaw ba mu jógee ci xooyantaan ak Baye Mandione teggiwul tànkam dafa gën a enfoncé jamaykee loo nar mu ne làmb laa bëgg mu dekki Gàmbi amateur yépp bég ca la taxawal diggante Leket Baar France bu Banjul ñu ne déetawaay mu teg ca building ak Boy Balla ñu ne déetawaay mu jël combat a teew ca Gàmbi pëndal ko ki teew ci sunu làmb wax sunu papa Lamine Thiam Dogo moom la mu xam mooy làmb léegi na ko mag ñi jàppeek na ko gone yi jàppe du benn bu dee mbër yu mag yi fi nekk ñoom seen carrière moo leen gënal lu ñu am bu dee nouvelle génération bi ñoom business la ko jàppe rax ca dolli na ñu ngi may jéeñ liggéey ca ministère des sports waaye liggéeyu ma fa tey liggéeyu fa ëllëg en tout Ba sama nit la fonk naa ko fonk na ma kantaa waxi Alioune Sarr nag moom magum jëmm la moo yor ca gël gu yam day xool bu dee day dem mu dem bu dee day toog mu toog en tout cas lépp lu mu ciy def daal moom la a fës